la yi Aïssa mu baax mi di xaritub soxna Xadi Njaay di xaritub ku bëgg lu baax nag tey jigéen ju yëngu ci lu baax mbaa ngay góor te bëgg lu baax rek moom jàpp na la waaye mu jàpp soxna Xadi mii rek ne ko bis bii xat na ci man lool sama programme it na lool waaye duma ci yable ñor ngeen ma gàmbul ñor ma jigéen ña ñor ma góor ña ñor ma mag ñàkk gan ñàkk dëkk na ñëpp ñor nañ ma waaye soxna Xadi danaa la wan ne ñor nga ma daal di bàyyi itam yëpp daal di ñëw ci bis bii yow de boo ñëwoon dong mu doy waaye mu wàññi ne nag lu dagg lu ne morom jëlay fekki bu réerut mu ànd ak nag sunu jigéen ju baax ji jàmbaar jii nga xam ni bi mu santee fay rek la gën ñëpp soxnaay mi fay mu baax mii bàyyi ko ba gànjaay di adjoye moom itam di jàmbaar bëgg lu baax yàgg na nu daje ci conférence yi am na ci boo xam ne sax soxna ay seen mii la teewal yaakaar naa ñëw ngir jëmmam waaye dama koo gis rek ne ko ki la yabal jurut muy ñëw jurut muy yónnee jurut muy woote mat nga sëkk ndaw yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla wéral say jël soxnaa mi nit ku baax la moom it teew na jataay bi bokk na ca ñi madame la maire bu njaafaat bokk na ci ñim àndal soxna sayna bu ba bàyyi ko ba ngooc ñëw ànd ak moom jàppale ko bokk ci délégation bi dooleel ko ñi leen teewal da laay wax fi mu ne ñi leen teewal ñi nga xam ne ñëw nañ ngir yéen ñoom laay wax fi mu ne bu ko defee soxna Saynabu mi ngi nii toog teewaay bi rafet na yàlla na yàgg lool yàlla na yàlla guddal soo fante wéral say jër bokk na ca ñi ànd ak madame la maire bu njaafaat sëriñ Ilimane Sat si mi nga xam ni man dinaa sawar ci présenté ko parce que moo yor nag affaire bi wàllum finance bi moo ko yor affaire bi loolu ma loolu ma soxla moom sëñ Ilimane moom mooy président commission finance bu njaafaat kon moom mii moo yor lu jëm ci financé kon moom mooy xaritu ñëpp rek waaye rawatina ma mii yàlla na yàlla guddal soo fan nit ku baax nga yow ku la xool rek xam ne da ngaa baax baax moom ku la moom ku baaxul du nga du nga jox wàllu wàllu ku ko yor rek baax nga moo tax nit ku baax nga su ko defee ñooñu la àndal ñu présenté leen jox sa njiili loo nuy wax ne soxna Xadi mi nga xam ne moo waral jotaay bu tedd bu rafet bii du ko ñaanal sunu borom jotaayam bii mu woote yàlla na yàlla barkeel ndax bi yàlla wàccee mbaax ba léegi da koo séddale ci ñëpp góor ak jigéen ku bëgg jël te moom ciram bi yàlla teg ci loxoom ci lislaam fexe na ba góorgóorlu si nekk yaa sayda nekk waxtaankat nekk kuy dundal lislaam te cër yëpp nag cër yooyu rek la laataa loolu nag maa ngi nuyu baax nag imaam Kébé moom mooy sunu sëriñ fii mooy sunu lépp moo ñu dalal tamit bi ñuy julli léegi tisba timis may naa ko imaam kaay jiite ci mbaaxam tax mënoom ñu barkeelu waaye yàlla xam na ne fii man wàccuwaayam la bërëbam la te heure bu ñu ñëwee topp ci ginnaawam rek kon imaam ñu ngi lay sant bu baax nag yàgg na fii ñëw fekk la ngay baax te ba tey liñ la xamoon rek ba tey ci loolu nga nekk di nuyu si Aliou Fall mi nga dendeel nag vraiment sama xarit bu baax la bëgg lu baax lool te yàgg sonn ci baax ay wàccuwaay ci dëkk bi wala sax si lislaam lislaam nag dafa xàmmewul góor ak jigéen ma ne lislaam nag xàmmewul góor jigéen gis nga cër yi yàlla yi séddale yëpp boo amee xel am kàttan yeew cër bu yàlla yi séddale bu neex nga ci yàlla du beral cër góor ak jigéen kon sono xadi cër bi yàlla séddale jël na ci wàllam nekk na yaa sayda nekk ab oustaz ba pare nekk kuy waxtaan ci diine donc sono xadi yàlla yàlla fay la yow bu la yàlla fayee ñi nga dimbale ci diine kenn du la ko xam tool toll benn rek lay joxe misaal mooy lii nga dajale nii tey lii ay million mënu ko diine rek ko man yow mi ko wootee kenn xeebu la te buñ la xeeba bu wootee kenn ñëw gàmmul gii nga dëkk di nga woote kenn xamul lu lu baax moo tax boo wootee baax ñëpp ñuy fekk ci la si maa ngi ñaan sunu borom mu gën koo yokku nag ba lépp loo jub rek yàlla defal la ko ñun am nañ ci yaakaar bu baax am nañ ci yow mbégte te jàpp naa ne li nga nekk dëgg la ndax yàgg na te itam ni nga boolee ñëpp ñuy benn parce que Cheikh Ablaye mi ngay waxtaan bu dee wàllu tariix bokku leen ko waaye xam-xam rek la ñor moo tax nga woo ko moom nag bi wax tamit du wax ci fam bokk ci xam-xam lay wax kon xam-xam bi ñu boole moo tax ñëpp ñu toog yàlla yàlla barkeel ko ci Ablaye ñu ngi lay sant bu baax di nuyu nag kilifa yëpp di nuyu yaa temps binta toxna awa jaag ak bamba ñoom ñoo may samay ñoo may samay gindi fii donc kon maa ak waa daara Gambi yëpp ak kilifa yi nag ma bañ a gàttal jël temps bi di nuyu tamit ñi monsieur le maire yabal ak madame la maire ñu koy nuyu ame naa ko lool ci kii bi yàlla yàlla barkeel fa nga nekk yàlla dolli xewal xam naa ma tënk benn tënk bu gàtt rek mooy gis naa léegi bi ñuy bi ñuy julli daanaka tuuti ñoo julli te loolu wóorut comme lu ngànt del julli même boo xamut looy wax sax jéemal ndax nag àdduna faxat te gis nga feeñu jëm yàlla ko moom te ku deful yàlla wax nga xam ne yàlla li mu wax na def donc bu ñuy bu ñuy jullee ku amul ngànt na julli ñàkk julli wóorut mbokk yi wallaahi wóorut te ci kanam borom bi kenn amu fa sañ-sañ ku suñu borom donc bu jorotee nañ julli kii laa yaakaar ak kii laa yaakaar baax na waaye ci kanam suñu borom amul loolu yàllaa fa moom lépp te lu mu wax da koy def donc buñ jorotee bu naagu naagu baaxut te ñun ñu nekkee ay jullit boo nekkee tijaan ki nekk xaaji ki nekk laayeen laata xaaji tijaan laayeen ab jullit nga donc buñ fokki suñ tarixa yi dañu yàq tarixa yi ñu topp rek jàpp ne ku si nekk sa pare na ci bu yàlla bëggee duma sa sëriñ mënu ci dara te day duma dañ bàyyi xel koo mën a yaakaar ak ku mën a doon fu ñu la mën a denc bu yàlla waxee ndigal boo ko jëfee mu rëq sa mbir kenn ko faj loolu mooy dëgg donc bu ñu yebee yàlla yab ku dul suñu morom te yeb yàlla mi ngi ci nga war a julli julli jiwoo te amoo benn ngànt kenn du ko def koo mën a yaakaar ba def ko yàlla ëpp doole te moo ko digal boo ko bàyyee yàlla dumal te kenn du ko faj donc bu ñu foyee suñu jëmb yi man Baye Niass nee na lii ak Sëñ Tuubaa nee na dara wóor ci parce que Baye Niass Sëñ Tuubaa Alaaji Maalik kenn moom si àjjana kenn moom ko ci yàlla mi ko moom moo ko digal boo ko bayee mu rëq sa ndigg kenn du ko faj bu ñu nekkatee fii nañu waxante dëgg ñu waxante dëgg gis nga am na yoo xam ne jaay nit la te jaay nit baaxul nit bu amee 18 ans war a julli ak lu la mën a jàpp bu yeexee julli jëli. bo feebaree ba jaaxal te da nga wara julli asamaan bi nga wéré man am katan te defoo dar lo def lu julli fa nga war def te wat na ko ci alxuraan yalla luma def luma def te bu lay duma sey sëriñ yaakaar yow mu duma kenn du ko donc caaxaan baaxul te yàlla bu lay duma sey mbokk lay ñu tak sey tank tak sey loxo nga ci gimmi fu mu jëm jox ko borom te pourtant bi ngay dund am na ko la moom ñun ñëpp. man taalibe Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa la gëm waaye sama kanam borom bi yàlla képp laa fa yaakaar même buñ ma suulee ci bàmmeel yàlla képp laa fa yaakaar luñ la wax lu lu la amut buñ la dugalee si bàmmeel tamit kuñ la wax dafa ñëw ku du yàlla ki ñim yónni dañ lay nax ay si sëriñ la tontul loolu bi lay wérut sëñ bi bindu ko tudd ko bind gis nga yàlla wa kulluma aati yi ñoom nga xam ne farna si Abdoulaye gis nga loolu ku ko weddi weddi yàlla te yàlla kenn ko weddi kenn wéet yàlla donc buñ toogadee fii buñ waxtu dëgg nañ noppi mag du nax boppam nit du jaamu yàlla beeg si bii bëgg ko yàq jaaduwul jaaduwul salaamaaleykum ñun ñi nga xam ne dañuy jéem jéemu taalibe dañ ñu jàngal ne sunu kilifa warul toog ñu toog tolloog moom wala ñu toog sut ko ci kaw kon Mbàkke ñu ngi lay ñaan nga jëggal ñi loolu xeyna togaay biñ fi toge moo tax ñu tok ba suñuy bop di tolloo ci kaw waye lool ñu ci tu bu baax ñu ngi nuyu d'abord monsieur le maire la commune de Thiombi nga xamne kiko fi téwal tey moy suñu nijaay Mamadou Diouf ak délégation bi mandal yépp ñu ngi nuyu également ki nga xamne mom moy borom dëkk Thiombi waye di diiw imam kebe bi nga xam ne moom lañ fekk mu bokk ci kilifa yi taaral jataay bi du nuyu également sunu nijaay sunu papa di wëllëre docteur Macoumba Diouf di jeen Farba Sarr nga xam ne moom it dañu bokkoon di yëngu ci wàllu politique nekk ci benn partie bi ñuy wax APR mu nekk jàmbaaru fàkk tëdd ci département bu Kaolack ñu ngi nuyu kilifa yi teew ci baas bi yëpp sëñ Aliou jërëjëf xam naa ne bu dee am na ku gën a am xewal ci bés bi jàpp naa ne man mii toog ci laa bokk ndax tàgg na Seydina Mohamed tàgg jàmbaar yonent bi yëpp ba yàlla def mu ñàq tooy xep ñëw langaamuma ñàq boobu taq ci man kon sant naa ci yàlla bu baax di wax ne rek soxna Xadi ñu ngi fi teew ci sa tur wëllëre docteur Macoumba Diouf di maire bu commune bu Latmingué xëy na ki doon présenté délégation bi léegi wax na ko nee na ab lay Sène adjoint wu docteur Macoumba waaye euh, du ñu adjoint dañu nekk jërbaat ci moom mu dénk nu liggéey ba fële ca Latmingué comme toogaay bi nekku fa yàlla def ñu lo nekk loxo ndeyjooram bés bii nag ba ko ko soxna Xadi yëgee mu am ci kontante lool ndax yàlla dafa def saa yuñ ko tuddewaan programme man maa ko koy fàttali waaye bii moom moo ma ko daan fàttali ndax yaa ngi bàyyi xel ci programme soxna Xadi bi ca gàmbul ma ne ko waaw ba tey boo xoolee heure bi ma la woo boba dafa fekk mom ci bopam moom wo nema, ndax programme soxna xadi bi yegsiwul mana ne ko waa daa mel ni la de mu ne ma jógal ngeen waj ngeen dem fa léegi ndax suma ma programme suba tel la ci la coupe ak nga nema nañ ba pare ngon lañu def conférence bi ci la coupe wat mo wat ko munti def su ngeen añee ba nopi na ngeen dem ngeen yegg fofu yàlla def ñu guddee yëg ci lool di jéggalu ci loolu waaye daal xamal nañu ne lii ci lu mu kontaan la ndax ku organise bés bu toll nii xalaat ki nekk ba lat ménge romb ay nit nit ñoo xam ne sa xel mënoon na dem ci ñoom yaakaar naa ne kooku boole ko ci sa bopp moo tax ndax am am taxut leneen taxut waaye sopp ko moom it mu sopp la mu nekk jullit akkan nga xam ne kii ci li muy yëngu nii ak li may yëngu benn la ba tax nga sóoraale ko ci bés bii ne moom lañ ko jagle yaakaar naa bés bu toll nii ku la ko tuddee ku la yéene jàmm la ku la yéene lu baax la ndax nag bés du tuuti boroom lay tollool kon soxna Xadi sant nañ gërëm nañ ginnaaw bi ñu boole ci bés bii suñu sañoon nag lépp loo xam ne taxawaale ci bés bi waa lat mi ngi ñoo koy def suñu sañoon tëpp nit bu fi toog bu ñu nee foo dëkk mu ne lat mi laa bàyyi ko waaye xëy na yi tey jamono moo tax ñu ñëwee ni ñëwee nii waaye ak lépp luñ fi mën di indi xeeb nañ ko lool imaam ahmaduna mooy sunu yeneen soxna xadi habibullahi soppe yàlla la safiyullahi jaasi yàlla la amiinu laay ku gëm yàlla la najiyu laay kuy diisoog yàlla la xayrul xalqe sayduna muhammad mooy gën gi minde ana ku fi gën a bëgg sayduna muhammad rasulullahi mustawa yow yam nen eh, waatambul déglu leen ma soxna xadi yoneen mooy kan نيكا محمد روح الوجود وسر الاكوان امام الاصاب السجود فما له ثاني موي محمد خير الورى نبينا اوا موي محمد بدر سرى سبحان من ساق ومستوى يا رسول الله سخنا سخنا خمو بالله تعالى جيجين مس سكجور كمن سيدنا محمد تجيجين ساتو سكجور كمليون عبلاي جوب ومسو انا كفي كنا بك سيدنا محمد رسول الله ومسو في تسولين في تسولين في تسولين كاي لا نيو ماك سيدنا محمد رسول الله ومسو لا يصير اسنا ليلى خديتها زوجدان من كل زاني يوحد الرب الودود صحيح الإيمان نبينا كندو سيدنا محمد رسول الله متى رسول الله رسول الله رسول الله بايو فاطمه am nay gën a rasulullah yaa rasulullah ana soppay Seydina Muhammad baayu Fatima am nay gën a rasulullah rasulullah ana soppay yonent ñoo ngi nii ana soppay yonent ñoo ngi nii waa Kambul damay laajee ku fi gën a bëgg Seydina Muhammad rasulullah gaay jug leen a taxaw ne Maman Laye. jug leen taxaw ne Maman Laye. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. yaa Rasulullah. laa ilaaha illallaah. Bayu Fatima Bayu Fatima. am na jënd. Rasulullah. soxna Khadija. yaa Rasulullah. laa ilaaha illallaah. Bayu Fatima. Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah ya Rasulullah baayu Fatima am na gëneel Rasulullah ya Rasulullah baayu Fatima am na gëneel ah Yàlla la fal ya Rasulullah waaw waaw waaw ana ko fi gën a bëgg Seydina Muhammad yaa rasulallah yaa rasulallah soxna Xadi xanaa xamoo Seydina Muhammad ne ko saaka nabi Haasimi ذاك سفي الحامي ثماني ذاك الرسول المضري ذاك علي هدي تهامي ذاك رفيق خوس المنيو سيدنا محمد موي ذاك نسي نور سلامي سيدنا محمد موي عين كمالي عين جمالي عين نوالي عين سلامي فقل خلال نفل الدنيا جمعك سيدنا محمد رسول الله لخو جاكو يلا لفل يا رسول الله nga daal di gan ya Rasulullah ah bépp mi ne ya Rasulullah bayu ah, ah, Fatima am nañ ka ne Rasulullah ya Rasulullah bayu Fatima am nañ ka ne يننت بجرنا ويعصوا يراك يراك عبد كنتك إنه سيدنا محمد رسول الله مصامي ما يوي نيكو محمد الله أحمد حامد محمود أخيد وحيد الله ما إلا آخب الله تاحل سيدنا محمد موي ياسين موي متحر موي طيب موي سيد موي نبي موي رسول رسول رحمة سيدنا محمد موي خيم موي جامع موي كليل كامل الله مدشر الله مسمل الله عبد الله حبيب الله شفيع الله نجي الله خاتم الأنبياء خاتم رسول سيدنا محمد موي مخي موي منجين موي مذكر موي ناصر موي بصير موي مبشر موي نور موي سراج تفلني نيو مكة سيدنا محمد رسول الله يا الله لفل يا رسول الله

طلع يا أم رسول الله أيوة أنا صوب يونن نيوني أنا صوب يونن نيوني أنا صوب يونن نيوني كوي جولي نجوم قال تاخوي يا كايو كوي جولي نجوم قال تاخوي يا كايو كوي جولي نجوم قال تاخوي يا كايو kuy jullit jógal taxaw yataaya ana soppay yonent ana soppay yonent yaa di jàmbaar yow Rasulullah yaa di jàmbaar yow Rasulullah eh, doon yi xam nañ la yow Rasulullah xam nañ la yow rasulullah fo xare daar nga fa rasulullah ah. ya rasulullah la ilaha bay fatima am na ngene tak la na tu ya rasulullah tak la na tu ya rasulullah أنا سبعيون نرجع أنا سبعيون نرجع أنا سبعيون نرجع أنا جيجنو على جانا أنا جيجنو على جانا أنا جيجنو على جانا جيجنو على جانا جيجنو على جانا di jàmbaar ya Rasulullah ya di jàmbaar ya Rasulullah eh, doon yi xam nañ la ya Rasulullah eh, doon yi xam nañ la ah. ya Rasulullah فخر دانغفا ابن يجدي رسول الله يا رسول الله لا اله الا الله باي فاطمه ابن Rasulullah yaa di jàmbaar ya Rasulullah noonu yi xam nañ la ya Rasulullah foo xare daa nga fa am nga ne Rasulullah ya Rasulullah baayu Fatima am nga ne yaa di jàmbaar ya Rasulullah yaa di jàmbaar ya Rasulullah صبي سيدنا محمد نلل سيدنا محمد صبي سيدنا محمد نلل سيدنا محمد صبي سيدنا محمد نلل سيدنا محمد يا رسول الله سجل يا رسول الله سجل يا رسول الله سجل يا رسول الله سجل يا رسول الله سجل يا رسول الله سجل يا رسول الله سجل يا رسول الله سجل يا حبيب الله يا حبيب الله سجل انا صبي يودن انا صبي يودن goro jigéen mag ak ndaw jóg leen taxaw tana ci la taxaw yalaw seeni baak yàlla jégal leen ci la taxaw yalaw seeni baak yàlla jégal leen ci la taxaw yalaw seeni baak yàlla jégal leen magal leen rasulallah magal leen rasulallah magal leen rasulallah teral leen rasulallah teral leen rasulallah teral leen rasulallah teral leen rasulallah teral leen rasulallah والخلخل بخنبرة قلبة تصاعرة الحب من ليس يرى الله جميعه في البشر فسك عبدال يا وديا إلى الرسل طيبان العاد بقدر المقتدر ويده مثل ربيخ لعد في شحر ربيخ فقد من عد الشبيخ على جميع العشقر بمن المفضل مكة خير خبلي سعير بالأول ماتت في العشقر في يوم اثنين يا سيدنا محمد آه آه آه كسبو يا رسول الله إني نسي بارام سبنا خديجة مصا إيه مصا يلد مصا أي وخلع مصا قبل مصا أي وخلع مصا قبل مصا كفر أقمهم دامن كفر أقمهم دامن كفر أقمهم دامن كفر أقمهم دامن كفر أقمهم دامن أنا كفيك أنا بقول سيدنا محمد أنا جن أنا جن يا لخيجة كا لخيجة كا rakki Mamour Diarra góor gu taalu Moustapha Mbacké Thierno Serigne Moutada Mbacké waa ana muri Mbacké bàyyi sëñ Fallou Mbacké bàyyi sëñ Abdou Khadir Mbacké bàyyi sëñ Soy bu Mbacké eh ana ko sëñ ana muri Allah ah, jugal jaayo kuy murid jugal jaayo kuy murid jugal jaayo ji ana waa kër Serigne Touba waa ana muridi ana muridi ana waa Serigne Fallou Mbacké ku sopp Serigne Fallou Mbacké ne say baaraam Serigne Fallou Mbacké Serigne Fallou ba sa jaay ba di dan di dem kenn du la juutu jaajëfe galas Serigne Fallou eh def leen du ñu màgg Serigne Fallou ana ngeen ana murid yi ana ngeen ku sopp sëñ Fallou Mbacké loxo ci kaw Alaaji Fallou Mbacké Alaaji Fallou Mbacké Alaaji Fallou Mbacké Mbacké bata okaas ba sa jaareem dañ doon jaay ba goon di da lax di dem kenn du la juutu jaay dafay gala sëñ Fallou ma leen gënal kontaan nañ ku ne wane nga niñ ko yëngu nañ xol yëpp féex na léegi noo ngi jégg lu baax Cheikh Abdoulahi noo ngi lay jéggalu gataay bu yàgg bi di la jéggalu toogaay bi di la jéggalu itam waaye yow xam nañ ne gàmbul sa gàmbul la waa dëkk bi sa waa dëkk lañ waaye noo ngi lay jéggalu baax gataay bu yàgg bi noo ngi siyaara sa xarit sa mbokk waaye sunub sëriñ sëriñ Xalil Mbàkke mi ngi ñëw ci gataay bi couleur gataay bi taaral gataay bi rafetal gataay bi ndax kii maamam mooy sëñ Tuubaa maamam mooy Seexul Xadiim Mamam, moy ahmadou bamba mamam moy borom touba mamam moy borom jàkkay géej mamam moy borom dar borom ndakaaru konakiri lot Mokil, dawmi congo bersi congo français banana bataka liasa abarisif cameroun angola Puma, liberville matadi sandalos giri giri samam moy borom magal gi samam moy borom djuma djumak gi samam moy borom jàkkay géej samam moy borom lambarana maa ngi wax ci turu madame le maire aissatou Ndiaye tal honorable député coordonnatrice départemental des femmes man lolu motax may and ak mom ndax man maa ngi gambu ba maa ngi gànjaay nek fa deuxième adjointe au maire togal fa maire nak liggéey gànjaay bi man mako ko yore euh, soxna khadi lolu motax ma tew fi tay yow ñu ñoo bokk suñu ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay même suñu ko doon soxna Aysatu dama fi war a teew ndax nag maag soxna Aysatu ñoo mank ñoo mank département bi ñoo yore jigéen di département bi man maa topp si moom waaye lépp dafa ma ko bàyyeeku comme ni ko Diouf waxe lépp loo xam ne xew na ci département yi jigéen ñi xewle ko moom bariwul sax li muy teew man maa koy teewal bon soxna Xadi honorable député Aïssatou mu ngi lay gërëm di la sant ndax su xewlee yaakaar naa ñooñu ñaar ñoo fay daje ñoo fay jóge aussi ñibbi suñu gox bi nga xamante mooy ngoo mooy gàmbul mooy gànjaay di nuyu suñu borom kër Xalil Mbàkke sëñ Xalil maa ngi lay nuyu di la ziyaar Mbàkke di la jox sa wàccuwaay waaye jital ziar bi sama sang sama khalid sama càmmiñ sama sering bu wër nag mu sëñ Xalil Mbàkke mi mel mom la lu am ci murit moom la kon bala Aysa maa ngi sukk ci sa kanam di raam di la yaakaar di la jox sama loxoy xol di ñaan yàlla sa yoonu maam wi yàlla bu la ci kenn ëppale Mbàkke Balla maa ziar bu baax a wax heure comme te dañ war a sama dom mang ngi lay jéggu yow gàmmul nga dëkk lii yow yaa ko ñaan newoon la ne ñaan bu nango sonal borom tay yaa ngi bëgg jot ci micro bi mu teela waye da nga ñaan kon en foog nak li nga ñaan bu nangu nak en foog nga am xoli muñ ñi nga xam yalla ma ma ak ñom ñu ay nit ci adina li tax ma jàpp leen ñu japp yalla mo wax ci alquran ni wa atiu wa ati rasula wa ulil amri minkum gëm leen yàlla wéetal ko nangu leen Muhammad man maa ko yónni waaye ñii yàlla fol ngeen nangul leen doomu tànk bi leen yàlla jox loolu moo ma boole ak yéen ma commencé nag njëkk gërëm sama monsieur le maire Alexandre ndax moom xam na ne dama koy sànni ay xeer jamono bu nekk wóor na Diouf wóor na kee di adjoint tam Alexandre bu ñu dajee li ma koy wax da koy jéggi waxuma ko ne mu jox ma dama ko ne na defal jigéeni Gàmbi ci suuf ma toog maag moom loolu la di ko jam ay xeer mais duñu meroo te duñu xuloo waaye dañuy waxante li ma bëgg ci dëkk bi kon nag wax dëkk ak yàlla mu nangul ma nag di ma déglu kon maa ngi koy ñaanal yàlla moom itam li mu bëgg yàlla am na ko yàlla ko ko yàlla jox maa ngi koy yóbbante ci moom ziar di ko wax ne la ma ko waxoon démb rek loolu laa koy wax tey mooy daal bu bëggee maag moom ñu juboo jamono bu ne lu mu am nag dimbale jigéen ñi gàmbul bu ko defee man ak moom ñu am benn problème ma di la ziar Diouf fu nekk daje nañ fi yow moom sama xarit la diine bu nekk ci gox bii maag yow daje nañ fi kon maa ngi lay ñaanal yàlla li nga bëgg yàlla ànd na ko yàlla ko yàlla soxna Faatu mais nag l'islam ca esti ba dañu yàlla boole woon mu bëggal ma boppam ne ma loo bëgg ci Alexandre dinaa taxaw ba mu am kon maa lay ziar bu baax a baax di ziar bu baax a baax nag ki nga xam ne mooy madame le maire Assou moom itam sama xarit la yàlla ñu boole fukki at maa ngi moom ñuy ànd xeebaluma suma dara du tey rek la mos a ñëw gàmbul ñëw na fi beneen yoon bu bii ci conférence lu ma xewle suma ko ko waxee bu ñëwul ndawam ñëw na alalam ñëw na bu ma ko fekk jee njaafat wóor na am fay ci néegu biiram la may dalal la gën a baax ca ñam ma loola la may jox mu fonk ma borom këram fonk ma maa ngi ko ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla am na ko yàlla na ko ko yàlla defal Adja Abi Faye mii nag maag moom ñoo bokk maan ñang mooy maamam jaañ ñang euh, saara ñang mooy sama maam ñoom ñaan ñoo bokk ndey ak baay kon Adja Ami yow loo ma defal sa bopp nga ko defal lu ma la ñaanal sama bopp laa ñaanal kon yal na yàlla defal la jàmm barke Seexul Xaddim di ziar bàjjan Seynab mi nga àndal bu baax a baax ñëw nag ci ki nga xam ne mooy docteur Macoumba Diouf kooku noppi booy na tur wi gàmmu ñëpp xam turi ma ku ma jur te gisuñu xam nga lu tax li muy def ci lu baax gàmbul mel ni ñun ci commune am lañ bokk jigéen ñaa ngi nii bu ñu amee dara luñ jax du ma woo Alexandre rek ndax su ma ko wooyee du ma ko jot mais ma ku ma jur bu ma ko wooyee mu coupé ma ne damaa nekk bitim réew maa lay woo doo yàq sa keneen barke Seexul Xadiim lu ñu bëgg ci àddina ci xaalis buñ ne jigéen ñu ne nanga ma ne ah kenn laa yaakaar bàyyi leen ma oo docteur ma ku ma jur ba ñu uti kayiti dañ ko woo téléphone am jigéen ñu bëgg a dugg ñu alamaan leen fukki junni ma woo ko téléphone ne dafa am jigéen ñu bëgg a dugg ci GIE bi yeneen jigéen ñi alamaan leen fukki junni mu ne maa ngi lay yónnee léegi fukki junni ak juróom xanaa kon kii moo moo ma doy loo weeru koor ma jot suukaram te parce que ma jot ñegu xaram ma kumba mënu ma koo fay yàlla laa ko bàyyee mari nag mu ma boole woon ak moom yàlla ay yaxam sedd yomal xiyam maa ngi leen di yóbbante ci ma kumba juuf daf ma ne yow sama rakk nga ma ne ko yow sama mag nga lu ne la may defee boole maa ngoon Njaay raxma lu ne may defal kon ma ko ma jox mënu ma ko fay waaye li mu bëgg jigéen ñi gàmbul looloo tax ma gën ko bëgg maa ngi koy ñaanal yàlla la ma bëgg yàlla am na ko yàlla ko ko yàlla defal moom li mu doon man duma ko doon man li ma doon mënu koo doon waaye li ñu boole mooy nañu bokk àddina bu àddina jeex du man duma mosa mu amaat na ndax dama ko bëgg nag dama bëgg a nekk député moom di kaasal jigéen ñi gàmbul te yàlla mën na ko def mais oustaz bi ma doon ma ko ma mën a tukoo doon moo tax ma ko ma jàpp na ma ñaari loxo maa koy ziar lii un mois laa ko woo ko waa nga mu la ngi doog a xam tey ne am nañ pare tey bi ngeen ko waxee maa ko woo ne ko damaa bëgg nga ñëw doon pare na pare amul un mois moo des mu ne ma yow boo ma woowoon ci benn fan dinaa la wuy si xanaa ko loolu mooy yëg bi mu ma yëg kon maa ngi koy ñaanal yàlla maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm bu ñu demee nag ba mu jeex na ma doog a ñëw ci waa Gàmmu ma wax heure bii waaye seen toogaay dafa yàgg maa ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla bu jeexee nag ma doog a wax ak sama waa dëkk wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Ousmane Ndiaye yóbbante bi mu ngi noonu yow xam nga man xam naa yow man sa yaay laa yow sama doom jàpp nga ma ñaari loxo rabbi may leen tuuti rek ba safara si fekk leen foofu incha allah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli amma baat subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka anta alimul hakim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yi ci yàlla ñu ngi leen di boole nuyoo bu gën a sell gën a teey gën a sakkan di nuyoo bu waa hajjana illa qilan salaman salaman mooy ñu wax leen salaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñu ngi dolli sant yàlla ci dimbale bam ñu dimbale ñu dikk teewaat ci jotaay bu mel nii ndimbalab yàlla la ndax ci diggante bi du ñàkk ñu bëri xamoon nañ yéen it fekkee ren jii waaye ñii fekkee wuñ ko ci dund ñii fekkee wuñ ko ci ñàkk wër ñii fekkee wuñ ko ci tukki ñii fekkee wuñ ko ci leneen ak leneen ak leneen ak leneen ñun yàlla dimbale ñu ñu fekkee ko ci kaw wër ak dund kon ñu ngi wax ne wa in neex nihmatallah la tuhsuha yàlla nee na xéwal yi ma leen defar su ngeen ko doon compter du ngeen ko mun lii ci xéwalab yàlla yi la kon ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin ci yàlla dimbale ba bam ñu dimbale ñu mun a fekkee jotaay bu mel nii jotaay yeb sante yalla la ndax soppe moy dik ci bir ay soppe jotaay yeb sante yalla la ndax di waxtan ci say bir soppe dafa neex damay wax ne soppe mo gëna for sa xarit ak xarit lu muy for for soppe ku gëna for soppe mo gëna for talibé ak talibé lu muy for for soppe ku gëna for ndax xarit moy ko xamne dafa dikk pour lii mooy yéenay bokk bëgg-bëgg yéenay bokk jubluwaay yéenay bokk xéene ci lépp ak lu mu munti doon te kenn ku nekk lim yéene boppam rek moom lay yéene moromam taalibi nag dafa dikk am lu mu ut si kër sëriñam moo xam xam-xam la moo xam xale bu jigéen bu mu nopp bu nekk ci daayira bi la moo xam wéccet bu muy am ci sëriñ bi la innamal amalu binniyati wa innama likulli li ma wa soppe nag moy ko xamné ne soxlawul dara ci serigne daf ko bëgg rek ngir yàlla bëggul xam-xam soxlawul xaalis nobu fa benn jigen bëggul dara ci kër gi may daf ko bëgg rek ngir yàlla lool moy suma digënté ak wa gàmmu kenn soxlawul sa monam dara luddul dul dañoo bëggante rek ngir yàlla te yonent bi mo wax ci hadith mu ne al mar'u ma'a man ahabba néna kenn ku nekk ki nga bëgg yene bokku dëkk kër ak yomal qiyam kon soy bëgg bëggal ku jara a bëgg te bëggal lu jara a bëgg moo tax su fekke yaa ngi gis nit ko xamne mu ngi am ku muy bëgg wala mu ngi am lu muy bëgg mom na set loolu mu bëgg wala koku mu bëgg ban njëriñ la ko amal ak fan la ko mën yóbbu su fekke gis na ci njëriñ na jàpp te xamne ñom ñaar ñoy bokk dëkk kero ñoomal xiyam su fekke na gis na ne kim bëgg munut koy yemale fenn fudu ci walu haduna na xeewu na réfléchir na xalaat te xam ne lu ko munta amal njëriñ waru koo jàpp ndax daf koy tardé kon ñun bëggante bii ñu bëggante ngir yàlla njëriñ bi dafay dem ba keroog yomal xiyaam kon bëggante ci yàlla ngir yàlla moo gën bëggante ci àdduna ndax àdduna fii la xem waaye bu ñu wax ne àdduna xamul soo ndax suñu yomal xiyaam àdduna lañ koy liggéey waaye nañ ci liggéey lu baax lu gën lu jub lu sell ak luy jëriñ bul bañ ki la mere bu ragal ku la mere bu ragal ku la xalab itam waaye na fekk na yow tu es quitte avec ta conscience pour wax ne li may wax yàlla rek tax ma koy wax su ma paree ci jataay bii utuma ku ma ci gërëm ragaluma te bañuma ku ma ci mere itam les l'essentiel mooy su ma génnee ba tëdd suma biir néeg naa xalaat ndax waxtaan bi yëpp am na lenn loo xam ne wax naa ko ci sama wàllu bakkan wala yàlla rek a taxoon may wax waaye ndokk ba nga xam ne musumaay def jataay ba génn ñu ne ma sa waxtaan bi kat wàllu bakkan maanaam da nga cee gis sa bopp ci biir programme bi kon loolu rek laay moytu nekk loo jaamu yàlla yi lépp lu nit di def rek naa ko def ngir yàlla loolu introduction bi la yéen ñëw woo pour waxtaan loo ñu ci wàllu dogal yaa Seyda Xadi Njaay suma yaay suma xarit moom daf maa wax ne dañoo bëgg nga waxtaan ci nangu dogal ma ne kon ma ne ma ne suma xol ba mu coupé ma ne suma xol ak suma xel ak suma xalaat ndax nit sax mun nay nangu dogal te gëmut ko balaa ngay nangu dogal danga koo gëm loo gëmul noo koy nangu yéen waa Gàmbul est-ce que gëm ngeen dogal balaa ngeen koy nangu est-ce que gëm ngeen dogal balaa ngeen koy nangu yaakaar naa balaa ñuy pare jataay bi di ngeen xam lu tax ñu war a gëm dogal ci kattanu yàlla insha allahu taala dogal ci kan lay baaxee ko ci yàlla lay bàyyee ko ñaan ci kan lay bàyyee ko ci nit lay bàyyee ko dafa am lu ñuy wax ñaan ak dogal ñaan ak dogal waxtu bu ñu dajee ndax ñaan dafay dominer dogal wala dogal mooy am comme dogal ci yàlla la bàyyee ko te yàlla su buggee dara toq automatiquement moom li mu bëgg dafay wax ne naa am rek loolu daal di am te yow sooy ñaan yaa ngi ñaan ba pare yow wóor la ndax li nga ñaan dinañ ko nangu wala duñ ko nangu kon ñaari poids yooyu duñ benn lu aju ci wàllu dogal yàlla dafa wàcce benn saar uniquement pour wax ci dogal boobu noonu muy ban saar muy suratul qadri ñett baat yii la ci tudd laylatul qadri ñett yoon yii la ko tudd ci saar bi mu ne inna anzalnaahu fii laylatul qadri muy benn wa ma adraka ma laylatul qadri muy ñaar laylatul qadri xayrun min alfi shahri est que xam ngeen laylatul qadri pour lan la yàlla lim njëkk a wax ci saari mooy ñun ñoo wàccee alquran ci guddeeb laylatul qadri mu mel ni fañ koy laajte lan mooy laylatul qadri yàlla mu ne laylatul qadri wala boog ma firi baat bi d'abord guddeeb dogal yi guddi bi nga xam ne ci la yàlla di wàcce dogal yi war a xew ci at bi yëpp hmm? ci guddi googu la ko yàlla di wàcce damay taxaw foofu tuuti imaam maa ngi wax ne su fekkee am na benn guddi boo xam ne ci la yàlla di wàcce dogal yii ci diggante at bi yëpp yàlla dogal na li war a xew ak li war a am kon jotaay bi yàlla dogaloon na ci laylatul qadri bi passé na jotaay bi dina am dogaloon na ne Seydina Ali Fall dina teew dogaloon na ne suma mbokk bële dina teew dogaloon na ne dogaloon na ne Cheikh Faye dina teew dogaloon na ne imam dina teew waaye li fi xew tam yàlla dogaloon na ko. léegi ndax am na kenn ku mën a soppi lu toll ni tarfatal ay ci li xew ci guddi gi tey ba ci man mii di waxtaan ndax am na kenn ku ko mën a soppi kon ndeke dafa jiitu dogal bi dafa jiitu bés bi kon su fekkoon ni nit ñi ni ñuy réfléchir mooy lépp lu xew ak lu mën a doon rek mu ne ah lii de dañ ko dogaloon ci guddi laylatul qadr bi kon tontu jaamu ji lan la war a doon mooy alhamdulilahi rabbil alamin loolu la ñuy wax alhamdulilah ala kulli xaal su fekkoon ne yàlla dogalul ne dinaa teew kon même su ma bëggee teew du ma mën a teew kon su ma dikkee mbir mi xew ni ma ko xéene woon ak ni ma ko bëggee woon dafa méngoog dogal bi yàlla waaye duur ne sama ñaan moo tax ma teew su fekkee ne yow mii jigéen bii sëy amuloo doom nga dem ci sëriñ bi ne ko ñaanal ma ma am doom sëriñ bi ñaanal la nga am doom sëriñ bee ko ñaan wala yàlla moo dogaloon ne di am doom ah imaam sëriñ bi moo def doom bi am wala yàlla moo dogaloon ci guddeb laylatul qadri ne doom bi dina am su fekkee da nga wax itam ne du ma dem ci sëriñ bi pour mu ñaanee la ma am doom damay xaar dogal bi yàlla wàcc mun na am dogal bi yàlla dogal na ko dans dix ans kon di nga xaaraat dix ans waaye est-ce que am nga patience beeg muñ boobu ak surtout pression familiale bi moo tax am na loo xam ne nit ñi war nañ ko moytandiku. ah booy takkagoo jabar mu ne déedéet takkaguma jabar ay ah, yow lay xaar sama morom yëpp am nañ soxna nga góor góorgóorlu góorgóorlu ba am soxna ah booy amagoo doom mu ne déedéet amagoo ma doom yàlla daal moom la ñuy xaar afaraytum maa tumnuun antum taxluquunahu am nahnu lxaaliquun nahnu qaddarnaa baynakumul mawta wa maa nahnu bi masbuuqiin alaa an nubaddila amsaalakum wa nunshi'akum fiimaa laa ta'lamuun wa laqad alimtum nash'atal uulaa la tazakkaruun ndekk loolu yàlla dogaloon na ko kon déggoo li mu wax afaratumaa tumnu yàlla mu ne xanaa gisu leen toqantalu maniw xanaa gisu leen ni doom du sosee yàlla mu ne antum taxluquunahu am naxnu xaaliqun neex yéen yéen a ci sos doom wala ndax man yàlla maa sos doom bi nit ki ànd nag soxna lay sos doom mu ngi ci seen diggante ñoom ñaar ñoo ànd doom juddu yàlla neen ndax yéen a ko sos wala man yàlla maa ko sos te doomu aadama ñemewul wax ne man maa ko sos te la def doom moom mu ngi ci moom yàlla moo ko def ci moom mu ngi ci moom kon soo ko laajee moom lu muy wax rek mooy yàlla moo sos doom bi ci man déglu baatab xadri yàlla mu ne nax nu xaddar naa bay na ko mu maatum ñun nax nu ñun yàlla naa ñoo dogal la wax baatab dogal la utiliser foofu nax nu xaddar naa bay na ko mu maatum ñun yàlla ñoo dogal dee ci seen diggante kon nit ki su deexee ñu ne ah kii sëriñ diw moko sànni corté liw moko ko diw moo ko liggéey de kële mo def nangam déedéet yàlla dogalon ne dina dé ci corté yàlla dogalon ne dina dé ci accident yàlla dogalon ne dina dé ci nangam ak nangam ak nangam kon lépp lu xew ak lu mëna xew rek waxal alhamdullilah ala kulli hal su waxe inna anzalna fi laylatul qadr dafa laccé wa ma adraka ma laylatul qadr légui gudeb dogal yoy noonu nga xamne ci la dogal yi di xewé dogal yi wara xew ci at bi yëpp ci la ko yàlla di dogalé yàlla ñu ngi melni dañuy laaj laylatul qadr moy lan yàlla mu ne yonent bi wama adraka ma laylatul qadr cey sama waji mu ne ko wama adraka ma laylatul qadr ana lan mo lay xamal gudi gogu yàlla di wax nga neel bi am ci gudi gi way ba tey ñu lan gudi gi lan la mu ne laylatul qadr khairun min alf shahr mo gën junney wër la ko wax mo gën junney wër way ndax wax nañu exactement deug deug lan moy laylatul qadr Hmm? waxuñu ko de waaye ngëneelab laylatul xadri wax nañu ko léegi lan moo jox guddi gi ngëneel bi mooy malaaka yi nga xam ne dinañ àcc ànd wàcc ànd ak ruuxu naa Jibril dikk indi dogal yi nga xam ne dinañ xew ci at bi yëpp mais nag problème bi mooy laylatul xadri bi ñii dañoo ne ñaar fukki fan ak benn la ñii ne ñaar fukki fan ak ñett la ñii ne ñaar fukki fan ak juróom la ñii jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ba ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent te pourtant benn laylatul qadri moo am wala boog juróom-ñaari laylatul qadri moo am benn laylatul qadri moo kon kan moo nekk ci dëgg xanaa am njortu bu rafet ci yàlla rek walla jël guddi yëpp def ko muy sa laylatul qadri doo perte te guddi gi du la rëcc guddi gu yegsi rek saxal ci ñaan ak ci jaamu yàlla wax na guddi gi tey la kon loolu leer na soo demee ci benn xadis bii may nettali yonent bi euh, Seydina Omar dafa nettali mu ne dañoo toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaju sol lu rafet lu weex dikk amul benn jeexitalu tukki bu nekk ci moom xam nga léeg-léeg nit su tukkee di nga gis yére bi pënd wala nangam ak nangam mu ne amul benn jeexitalu tukki mu fekk fi yonent bi toog rek mu ne gërëb toog sukk ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa xamal ma lan mooy islaam su ngeen déggee may nettali dafa am benn baat bu ma ci soxla mu ngi ci biir yonent bi tuddal ko baatu seede julli asaka woor aj makka point waaye nag lu ma ci jaaxal mooy saa yu waxee rek ñoom seen amoon ñu ne lu leen ci jaaxal mooy waa ji dafay ne wax nga dëgg sa daxta wax nga dëgg mu ne waa kuy laaj ñu koy tontu naka la mun a dëggale ñaareeli ponk bi mu ne ko xamal ma lan mooy imaan mooy gëm baat boobu rek laa soxla moo tax ma indi mu ne ko xamal ma lan mooy imaan mu ne ko imaan mooy nga gëm yàlla nga gëm malaaka yi nga gëm yonent yi nga gëm téere yi nga gëm bës pénc juróom benneel bi lan la nga gëm dogal yi lu neex ak lu naqari ah ok ndeke gëm dogal yi kon su nit ki waxee ne dafa gëm yàlla dafa am imaan su gëmut dogal yi imaanam manqué na maanaam ngëmam manqué na kon lu tax nit ki war a mun a wax ne moom gëm na yàlla muy dëkk ba ci jataay bi di ñëw fii am benn gàllankoor bu ko dal mu ne non lii waruma woon dal ana sa ngëm te pourtant yonent ba muy lim ponk gëm yàlla yi daf ci boole woon gëm dogal yi moo tax ma waxoon ci tàmbali bi ndax nit mun na nangu dogal te gëmu ko il faut mu gëm yàlla doo ko mun a gëm dogal yi su gëmee dogal yi mu neex ak mu naqari mooy xem ci moom su neexee da koy gëm su naqaree da koy daf koy gëm loolu mooy dëgg-dëgg ko gëm yàlla moo tax ngëm mbirum aqiida la mbirum pas-pas la ngëm ci xol bi la nekk su neexee ak su naqaree maanaam accident bi xew sa ngëm moo ko ëpp doole moo tax accident bi su ñëwee day lap ci sa biir ngëm bi ba doo ko yëg ba du ci yow waaye bànneex bi su ñëwee mooy xaalis bi su ñëwee oto bu rafet su ñëwee na su ñëwee li nga doon ñaan yëpp su ñëwee sa ngëm bi moo ko ëpp doole ba du la beewloo du la jural benn beew lu la ngay wax alhamdulilah ala kulli xaal ndax yonent dafa waxoon ne gëm yàlla mooy nga gëm yi ci lu neex ak naqari moo xam lu dootoo ko xamee li ngay wax rek mooy alhamdulilah ala kulli maa ngi gëm yàlla ci dogal bi mu dogal lii ci man <laughs> amin yaay booy amin <laughs> moo tax alquran mu ne inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadarin bi dégg nga yàlla mu ne ñun yàlla ñun yàlla ñun yàlla waroon ngeen ma bàyyi foofu rek ma firi inna bañ dugg ci biir ñun yàlla ñun ñun yàlla ñun yàlla mu ne inna ñun yàlla naa aw kulla shay'in wala boog inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadarin yàlla nee na kulla lu mu mun munti doon ak lu mu mun a dox lu fi nekk nga gis ko ak li nga gisul yépp a ci yàlla neen ñun ñoo ko bind ci suñu dogal ba léegi naka la julli di déggee baat bu toll nii ba pare dogal suñu mu cee am sikki sàkk wala xolam di di di rëngi rëngi ci dogal bi nga xam ne yàlla dogal na ko bàyyi su yàlla dogalu toon ne jëtaay bii dina am Seyda Xadi mënu ci dara maanaam jataay bi am bi mu am dogal bi mu jiitu am bi mu am mu ngi mel ni caméra caméraman bi mu ngi filmer jotaay bi mais am na ñoo xam ne seetaanaguñ ko kañ lañ koy seetaan mooy saa yu génne kon seetaan bi filmer bee ko jiitu filmer bi mooy dogal bi seetaan bi mooy shahada maanaam mbir mi feeñ na léegi ñun ñu ngi koy seetaan léegi soo ko seetaanee léegi yow li ñu filmé woon ba pare nga seetaan ko yaa ngi xool ci télé bi de wala boog yaa ngi xool ci film bi nga gis ne waa ji mu ngi yëngatu nii est-ce que yëngatu bi lu bees la. yëngatu woon na bu yàgg yëngatu na bu yàgg yëngatu na bu yàgg léegi nag man mi jóge ci Sibassor di dikk ci Gàmbul ñaanuma ko yàlla de waaye dogal bi su fekkee yàlla dogal ne su ma pono bi dina crevé wala dina toj wala oto bi dina accident damay wàcc ci oto bi su fekkee mucc naa damay wàcc ci oto bi reetaan muñ kontaan ne alhamdulilah ala kulli haal ndax lii filmé woon nañ ko bu yàgg dafa feeñ ci shahada nii rek léegi nii kon yàlla moy aalamul ghaibi wa shahada ki nga xamne mo xam lu lu faddu mo xam lu feñ ko gu su dogalé dara feñ da fay a feñ ci yow mo lol dogalon nako bu yag amon na bu yag walik léegi suñu xamee la yaa ayyuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yadi llahi wa rasulihi wa taqullah inna llaha samiun alim alquran da fa ne yen ñi nga xamne gëm ngeen bu len jitu yàlla ak yonent bi ci ay dogal ci ay décision yàlla moo wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen laa tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi bu leen jiitu yàlla ak yonent bi ci ay dogal ci ay décision mu ne wattaqulaa ragal leen yàlla inna laa samin alim yàlla mooy aji dé déggaakoon ci lépp lu munti doon lépp lay dégg même jotaay bi jotaay bu munti doon yàlla mu ngi koy dégg wallaay nit ñi waroon nañ leen jëswu ci loolu inna laa samin alim mooy aji déñ ko itam ci bépp mbir lépp la xam te lépp lay dégg kon lii suñ ko xamee nii lan moo tax ñu bugg a jiitu yàlla maa ngi wax ak nag ñi nga xam ne yàlla nattu na leen ci lenn parce que ndeysaan dafa am góor gu baax ju ma doon wax mu ne ma taalibe ma ne ko naam mu ne ma lenn rek mooy gàllankooram ma ne ko lan wala boog ma wax ci sama xol lan mu ne tayal ak yàkkamti taalibe mu ne lii rek ko mun a yàqal tayal ak yàkkamti mu ne taalibe su tayalee pour mu jóg dem jëriñu ju day tayal même su sëriñ bi di waxtaan ci xam-xam wala ci lu koy jëriñ tayel dina ko jàpp du deg du dem jëriñu ji wallaahi subhanallah beneen bi mu ne su yàkkamtee balaa sëriñ bi di pare mu jóg dem mu ne taalibe boobu du jëriñu ma ne ko nag wala boog ma wax sama xol sëriñ bi nag lan mooy tax du jëriñu mu ne teel a bugg a feeñ dafa yàkkamte dafa teela bugg a feeñ maanaam est xam nga lenn bâtiment bi balaa muy taxaw fondement lañ njëkk a gas ci suuf fondement boobu ba mu dëgëree ci lañ teg ci kaw mu mun a supporter poids bi waaye fondement bi su dëgëru du mun a supporter poids bi léegi sëriñ naka lay jékki-jékkee bugg a teg poids ci kawam te moom amut fondement mooy liggéeyul ci yàlla. imaam yonent bi ñaata at la oote balaa yàlla di ko jox ndigal mu ne ko biralal woote bi léegi ah ndax dafa jékki-jékki rek yàlla yónni ko rek ne ko biralal woote bi. waaye toog na ñaata at ñett at di laqatu di lig di di di liggéey di góorgóorlu ñetti at yooyu xam nga la la fondement la ba ñetti at yi moo tax rek mu ne ko léegi génnal nga xoote ji wala boo génnal nga wax léegi fondement am na dëgër na waaye naka nga mën a supporter nag sëriñ boo xam day jékki-jékki rek génn rek bugg a automatiquement ñu xam ko ci saa si xam nga loolu mooy lan mooy bugg a forcer internet bi déedéet ne par force dañ may xam tey tey tey tey toj na dëkk bi. motax alquran mun la tuqaddimu bayna yadi yadillahi wa rasulih bu len jitu yàlla xam nga yow li nga wara don doon est ce xam nga ne yàlla tudd na ko kon loy soxla di forcer sa bop jetaay bi ni tay wa gàmbul ne man man ma wara def waxtan bi ni tay ñom xamal nañ sen bop ne man forcer huma jetaay bi dañ ma inviter ma dik waxtan 7 minutes xoma 8 minutes la fi waxtan kero ñom ñu laajte ya khadi suma yaay ne ko ki kan la mu ne ki sama dom la ñu ne wa ki mom neex nañu mom ki mom mu nañu kon xam nga ne kooku forcé wul jotaay bi de parce que man li ma war a am ëllëg li ma war a doon ëllëg fi ma war a àgg ëllëg xam naa ne yàlla dogal na ko ba pare ak lu mun a xew dogal na ko même su ma demee ci jotaay ñu xañ ma kàddu joxuñ ma ko damay ne lii yàlla dogaloon ne du ma am fii kàddu tey naa inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadarin loolu rek laay wax lenn lu nekk ak lu mu munti doon rek yàlla dogal na ko balaa balaa balaa muy balaa muy feeñ kon su feeñee dafa may fàttali inna anzalnaahu fi laylatul qadri rek ma daal di noppale ko alquran ne wa man yattaqillah يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله باله امره قد جعل الله لو رك لا دون سيتي لو رك لا وري لا دون وري جي. قد جعل الله لكل شيء قدر يلا نينا لين لو نيك ما تاي ديف دوغال لغي نك دامي قول سما اور كوم جيل نين سما كادو بي ييب لما وارون وقتان damay ut lu ma mën a yëkk ci cin bi ci pool bi rek ma yëkk ko rek su ko defee ma dem ñibbi su ko defee ma bàyyi leen mbana bi ngeen seet li ngeen di def ak mbana bi yàlla mu ne yàlla mu ne waman yattaqillah képp ko ragal yàlla yàlla nee na yaj'al lahu maxrajan man yàlla maa koy defar ak ab génnuwaay maanaam su nekkee ci xat-xat wala jafe-jafe lu mu munti doon même jataay bii ma toog ne am na ñu ma fi tawat seen seeni i jafe-jafe wala seen xat ngi tontu ne xat jàlla la li kulli seen xadra jafe-jafe boobu yàlla tuddoon ne dina agsi waaye suñ ñaanee tam dañuy sukkandiku rek ci xadisu yonent bi waye man suma ma nekkutoon respect ci yonent damay ne ñaan jaruko jaru nit di ñaan mais dama am respect ci yonent bi motax moko jangna adwa silahul mumin adwa khul ibadatu adwa muqul ibadatu dama am respect ci yonent bi motax may ñaan mais man ak ni diggé yalla ak nima jangé ni alquran waxé ci walu dogal kon damay ne ñaan jaruko parce que lu wara xam yalla dogal nako ba léegi su yalla dogalé lu wara xam yo sa ñaan lu mu ci mun sa ñaan mënu ci dara kon respect ci yonent bi motax may ñaan ak su fekkee tëj nañ nit ki kaso ñu dem ba tabaski jot wala benn événement wala dara xew ñu ne président dafay accorder grâce du noonu la grâce peine bi mu waroon tëdd ñu ne président bi accordé na ko xanaa ñaan pour loolu la kon pour ñaan grâce rek <laughs> kon xat jàllalax li kulli seen xadran yàlla nee na lenn lu nekk man maa cay def dogal alxuraan nee na huwa allazi yuxyi wa yumiitu fa iza qada amran fa innamaa yaqulu yaquul la lahu kun fa yakun yàlla nee na moom mooy ki nga xam ne mooy dundal waaye moom tam mooy rey waaye su bëggee amal dara moom yàlla dafay wax ne lii na am rek loolu daal di am ndeysaan alquran nee na wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi wal jooi wa naqsin min al amwali wa amwali wal anfusi wa samarati wa bashiri sabirina allazina ida asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaayika alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma wa ulaayika humul muhtadun loolu du alquran yàlla nee na dinaa leen nattu ci lu mu munti doon ci lu ngeen di ragal ci xiif ci alal bu yàqu ci dee yàlla ne loolu yëpp dinaa leen ci nattu waaye nag daf ñoo utal solution nee na su ma leen nattoo lu ngeen war a wax xaalu xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wax leen ne ñun ñëpp ci yàlla la ñu bàyyi ko te ñun ñëpp ci yàlla la ñuy dellu man damay wax ne wax dëgg yàlla léeg-léeg nga toog ba mu yàgg nga gis àdduna nu muy doxee nga gis jamono nu muy doxee damay toog ba mu yàgg damay yërëm jaamab yàlla yi pour walla ne bàyyi àdduna bi dara jarta forcé àdduna bi jara jarta xëccu soo seetloo man du ma xëccu dara seen naa Alifa la ngi nii toog doy na ma ci seede daf may invité tele ba sonn ma koy dof dofloo ma koy dof dofloo pour mun a daw rek te man xam naa ne ñàkkuma lu ma wax waaye bugg na ma fi yóbbu sax ba dakaar xaw ma wal fajir la ma wax lañ ko invité woon waaye ma koy dof dof loo rek ba bañ a dem moom xam ne loolu ci man xam nga lu ma bugg ak lu ma gëm mooy xat yàlla la li seen shay'in qadra damaa gëm ne yàlla su dogalee ne dinaa dem walaay dina yomb comme huit <laughs> waaye du ma forcer dara Seyda Khady Ndiaye bi waxtu bu jàppee bés bi benn vocal la may yónnee ah yow sa bés bi dikk na jàpp nañ ko lii laa bëgg nga waxtaan point final yoonam nekkul ci leneen. su fekkoon kenn tey mu ne waaw waaw kii lu tax mu may yónnee vocal pour di ma wax programme boo xam ne man maa ko war a def nag est-ce que yaa ngi xalaat xat jàll allahu li kulli shay'in <laughs> lu jiitu loolu yàlla dogaloon na ma ne mii lay demee léegi yow soo ci defee leneen da ngay ñaaw mais du tee dogalab yàlla du soppeeku léegi su ma waxee ne moom du man duma ko def léegi bés bi jege si wala bés bu yegg si mu am ku mu àndal koo xam ne dikk na ne ma yow man sa yaay du ma sa morom. bugg naa suma la waxtee nanga man léegi man dama ci mujjee ñaaw mais di dinaa dem léegi soo demoon ci vocal bi du gën a yomb ci yow léegi demoo ci vocal mais dem nga ci taxi bi ba mu ñëwee wala oto bi ba mu ñëwee dem nga mais dem am na xat yàlla laax li kli seen xadara <laughs> ma xamale ko foofu wala ma continuer <laughs> kon li ma bëgg a jàngale foofu wala li ma bëgg a wax foofu mooy nit ku nekk soo gisee nu programme bi yàlla di doxee wax dëgg yàlla da war a noppale ko doo xëccu dara doo forcer dara doo xoote dara ci dara alquran nag nee na maa asaaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum dégg nga foofu dafa préciser su fekkee ne am na loo xam ne jàpp na leen wala am na loo xam ne xew na wala am na loo xam ne am na ci suuf si wala ci seen bopp dogal boo xam ne loo xam ne daal dal na leen ak lu munti doon muy lu neex muy lu naqari yàlla bindoon na ko ci téere ba pare wala yàlla bindu ci téere yàlla bindoon na ko ci téere ba pare mooy téere dogal yi maanaam li xew ci suuf si nii tey jël ngeen seen alal yëpp gas ngeen pax ba mu xóot ngeen suul ko ñu ne nawet bi baaxut yàlla bindoon na ko ci téere yow ñak bi la dal yow jafe-jafe khat khaté ñak bi la dal wala fi anfusikum ñak bi la dal naqar bi metit bi feebar bi loolu yalla bindon nako ci téré ba paré yow mën nga effacer téré bi yalla bind gis tendance xoma nan lañ koy waxé bu xëy alquran nag nee na walaw laa is daxalta jannata ka kon ndeke yow da nga am sa ajana man ma am ajana yaay booy am ajanam imaam am ajanam kële am ajanam xanaa doxut benn ajanam moo am yàlla daal nee na su boobaa wax leen xaalu macha allah laa xawla wala quwwata illa billah kon ndeke yow soo duggee ajana du sa ngóora man suma duggee ajana du suma njàmbaar keneen ak keneen su duggee ajana du ngóoram waaye yàlla wax leen ne lii de yàlla la sopp laa xaw la kattan ak pexe kenn yoru ko ku dul yàlla moo tax mu ne wax leen ne xaalu الحمد لله الذي هدانا لهذا wa ma kunna li naxtadi lawla an hadana allah wax leen ne alhamdulilah ñi ngi sant lesi ki nga xam ne yàlla mi nga xam ne hadana li haza moo ñu jubal ci lii ñu mun a teew ci jitaay bi di waxtaan ak yéen ngir yàlla mu ne wa ma kunna li naxtadi lawla an hadana allah su duutoon ak yàlla ñun duñ jub suñ demee ba wax ne ñun dañoo jub ba mun a organiser lii yaay booy dajale waa gàmbul yépp ci benn benn buum muy wax tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu loolu duhut kenn ko du ndimbalab yàlla yàlla rek moo leen mën a jubalee noonu moo tax ngeen am loolu kon yal nañu yàlla dëgëral yal na yàlla dëgëral suñuy pas-pas yal nañu yàlla dimbale waaye njub bi nga xam ne yàlla moo ñu ci jubal xam nga lu ci yàlla wax cheikh liman shaa minkum an yastaqima kum neex ci yenn jubal wa ma tashauna illa an yashaa allahu rabbul alamin waaye du leen soob fekk ndere ndere mu nekk na yàlla la soob xam nga bàyyi su ma gisee koo xam ne mu ngi mooy yàlla mu ngi def naka su dul noonu mu ngi def njuumte mu ngi def lum warta def isa maru billaxwi maru kiraaman walladina laa yashhaduuna zurra wa isa maru billaxwi maru kiraaman xam nga lu yàlla wax yàlla mandute la jàngale fa mu ne soo rombee koo xam day def caaxaan yàlla nee na rombal romb teraanga bu ko xas ne ko yow lu tax ngay def lii lu tax nangam oh inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaan yàlla diggal nañu pour ñu màndoo ak pour ñu rafetal kon ki nga xam ne mu ngi téye micro yàlla natt ko muy wax wallaay na wax ngir yàlla bu mu ut lu neex kenn bu mu xas kenn bu mu ci fayee bor bu mu ci leble bu mu ci fay bor na wax rek ngir yàlla waaye man li ma mënta comprendre mooy kii wax ne kii boroom xam-xam la moo tax bàyyi fekk jant bi sowul juubu du weesu léegi-léeg nga dégg ñu ne góor kii góor la jàmbaar la conférencier la waxtaankat la ñu dem ba ci sama mujjëb dund wala al axiratu xayrun laka min al ula ma juum yàlla yóbbu ma ci loolu te yonent wax na al mar'u ya'asu ala ma mata alayhi yonent nee na kenn ku nekk soo deexee suñ lay dekki dañ lay dekki ci li la rey maanaam ci li nga deeyee ci loolu lañ lay dekki waale ko maanaam su ma deexoon ñaanuma ko yàlla ak butéelu sàngara ak lu ma munti góorgóorlu ci àdduna dañ may atte rek ci butéelu sàngara bi parce que loolu laa yóbbaale ba may dee kon yal nañu yàlla sax ci njub kon liman shaa minkum an yastaqima wa ma tashauna illa an yasha allahu rabbul alamin maa ngi leen di jox rendez-vous déwén ak jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu